laana allahu man ay qadaha mbokk yi nga xam ne yéen baaxoo di safoo di seetaan seen Elvision Média maa ngi leen di wax yéen ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu euh, ñu ñëwaat ci seen émission bi nga xam ni moom lañ baaxoo di ko def euh, ay bés bu nekk tey nag émission euh, ahlu bayti rasul nga xam ni baaxoo nañ di ko seetaan tey mu am gan gu màgg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 mbokki jotaayu ahlu nabi ñoo ngi leen di nuyu ci baatub assalaamu aleykum wa rahmatullahi di nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi topp jotaay bi di jaarale seen nuyoo ci sunu sëriñ alxaaji omar sàmb mu jottali ko mbooleem téléspectateur yi mu am yëpp ñuy topp jotaayam bi di ñaan yàlla ñu door kook bismillah mottali kook alhamdulilah. macha mhm. allah Hadj Malick Mbaye euh, comme ni mu ko dégg ngeen nuyoo bu am solo boobu muy iftaax bu rafet boobu ñu nuyu ko bu baax a baax nuyu ay soppeem alxaaji Malick mbay nag tey moo nekk suñu gan. ci ahlu bayti rasul muy waa kër yonent bi sallallahu wa waxoon naa leen ni leen waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy ahlu bayti mooy dafay topp ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, liggéey ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa muy waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo xam ustaas la moo xam jàngkat la moo xam imaam la ku mënti doon ahlu nabi dina la dalal tey jii nag ñu dalal ko nag nga xam ni ku ne dégg na ko tey euh, ci àdduna bi moo wax ci rawatina Sénégal euh, tey jii site boo tijji rek daanaka dañ ci fekk ustaas Malick mbay boole ustaas Malick Mbaye boole la moo ko boole ak site internet yi waaw alaaji Omar internet moom dafay mbedd moo xam moom ku ni duma fa demit sa njaboot dana fa dem jamono toll foo xam ni lu waaye di wax bëgg ñëpp jot ci fa ngay dem lu waay di jaay bëgg ñëpp gis ko fa nga koy yóbbu wane ko fa jamono toll it foo xam ni lu waaye di def ci lu bon fa ngay dem ngir defee ko fa koo bëgg a naxit fa ngay dem ngir nax ña fa ne ndax ñëpp fa daje. Mm-hmm. bu fekkee ni noonu la bindoo nag. Mm-hmm. yow boo nee ñu bon nga fa duma fa dem rek. Mm-hmm. yow paro parewoo pour saafara ko. macha dem ci biir marché ba. segg ya baax wan ko ñi wër lu baax. waaye segg ya fay ay safaan itam ngir moytuloo ko ñu bëgg moytu safaan. Uh-huh. loolu daal ci tënk. moo nu fa yóbbu Alaaji Omar. dégg ngeen Oustaz Malick Mbaye euh, daanaka. kuy lire euh, internet bi lu bari wala nga koy suivre di nga di nga gis ay vidéo macha allah vidéo yu am solo yooyu waaye Oustaz Malick Mbaye euh, euh, xam-xam bi macha allahu rabbi Oustaz Malick Mbaye fan la jàngee. waaw xaaji Malick moom mu ngi ci daara ji di jàng xam-xam sax amagu fi. ñu ngi juddoo ci sunu ronu way jur wu góor jàngee ci moom ba wàcc alquran mhm. sonnoon nañ ca lool nag ba ko mokkal waaye du sunu cër. Mhm. du sunu wërsëg. Mhm. waaye ku ko mokkal mën nañ laa téyel baat boo yàq mën nañ la ko defaral baat boo gàggit mën nañ laa gàgganti mhm. mokkal lu ko nag mhm. gannaaw gi lanu booleeg wëllëreem bu ñuy wax bàyyi alxaaji kàbbu gay ñu mhm. ngi woon fii ci caaro yi moo ñu jàngal téere fiqhu maliki yi tàmbalee ko ci ñuy jàng ci majalis yi laxdar yi ba muxtasaru xalil ci la ma delloo ci sama benn mag bu ñuy wax Serigne Ousmane Niang moo mottali sama ayliwoo ci muxtasaru xalil naxwu luga ak mbooleem funuun yi nga xam ni daañu ko soxlawoo ci daara ji mhm. liñ ci jot a mos ci moom lañ ko mose ak ci bàyyi alxaaji Makumba Gay moomu mhm. ci tënk daal loolu mooy sunu tolluwaay ci daara ji macha allah euh, dégg kon euh, oustaz Malick Mbaye wax na fi mu jaar ndax ndaw la waaye ndaw la boo xam ni xam-xam moo ko yitteel ak li nga xam ne moom mooy diine waaye tamit ak ñoŋal këru diine yi ñoŋal mbindu mag ñi ak jaar-jaaru mag ñi Oustaz Malick Mbaye tey moo nekk suñu gan fii ci Euhlou bi Oustaz Malick Mbaye gannaaw ba mu jàngee ba noppi ndax ba mu jàngee ba pare dafa bàyyi jàng topp métier mi am ban métier mooy sa métier instant bi waaw bi ñu nekkee ci daara ji ba bëgg a jàngi métier taamu woon nañu yu bare am na ca sax yu ñu tàmbale waaye waajur wu góor wi daara ji ñu juddoo ñun dalee fa jàng mm-hmm. moo ko yoroon moom waajur wi mm-hmm. mu demee ba magee nag jotam mayetu ko ko mooy imaamu raati bu dëkk ba mm-hmm. mu ñaannu mm-hmm. nañ ko toogal ci daara ji dundam mm-hmm. ak gannaaw dundam ñu bàyyi fi gor ak yatt yëpp toogal ko ci daara ji xatal aan bu nu xëyee daja fa ak gone ya di nafarandoo li ñu yàlla xamal ci téeréem bi ak ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa macha allah kon euh, oustaz Malick Mbaye bokk na ci ñeent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni xayrukum man taallama alqur'ana wa allamahu mooy ki nga xam ni moo jàng alquran ba noppi di ko jàngale dégg ngeen fi mu jaar jàng alquran ci ay waajuram yu sell yooyu ak ay kilifaam waaye tamit mu wëlbatiku jëlaat mécc alquran nga xam ni moom moo gën ci lépp lu ñu jàng li waykat bi wax ni afdalu ma yutla وما يقال وخير ما ينفق فيه المال القران مو گنت لپ لو ني جانغ گنت لپ لو خام ني فينانس علال كون لول تامي داني بروفيتو دي وخالي سنغالي نيغا خام نيور علال ديكو فينانس فينين فو خامني بوكو لك القران نانكو فينانس سي دار يي ناخ لول امنا سولو تروب تاي ناك ني دالال كو واي وقتاني بن بوين بو خامني لو ييتيل سنغالي لا لو خامني سنغالي يي بڬ نانكو خام استاذ مالك مباي تاي دمالا دالال بور ني وقتاني ديگنتي maanaam lan moom ban ban problème moo am diggante ñi nga xam ñoom ñooy mutasawifuuna yi ak ñi nga xam ñoom ñooy asalafiya alwahabiya ñooñu lan mooy seen problème ñoom seen diggante ak ñan ñooy mutasawifuuna yi. tabaarakallahu alxaaji Omar. jotaay bi yàgg na am solo waaye bi nga tey itam comme tomb am na solo. tomb boo xam ni ni nga ko waxee jaaxal nañu bare. Mm-hmm. ñee beru ñoom ñooy mutasawifuun yi. ñeneen beru ca wet ga ni ñoom ñooy salafiya waaye ñee lu ñu am ci lu bon sànni ñi ñii itam lu ñu am ci lu bon delloo leen ko coow li mel ne tabaarakallaahu tulleeg màlle li ko sabab nag bokk na ci yi ko waral ñee seen bopp asalafiya dafa lu ñuy jiiñ ñii tuddee seen bopp asuufiya ñii tuddoo asuufiya itam dafa am lu nuy jikkoo ak di ko melokaanoo loo xam ni la doon at tasawuf al islaam yi nekkuñu ci dañoo nekk ca la leen neex nan tasawuf la ñee nag ëlee ñu xam ni ñoom ñoo nekk ca la neex naan tasawuf la waaye lay tasawuf moom du lee ñoom dañuy jël seen làmmiñ rek naan tasawuf tasawuf tasawuf bu ko defee dañ ca boole ku baax dañ ca boole ku baaxul te pourtant kuréel goo dem ci lislaam xataa l'islam d'une manière général mhm. am na ci biir njabooti lislaam ñoo xam ne ci biir baaraba la ñuy fanaan mhm. boo fa fekkee ka fanaan ca baaraba tudd Muhammad mbaa mu tudd Ibrahim mbaa mu tudd Suleymaan mhm. boo koy yedd yedd ko en tant que moom ak lim def ah. mais bul ko ni yéen waa l'islam nii ngeen mel parce que sax ci loolu ba tax da ngay gis maanaam euh, ñoom dañuy wax ni euh, ñi nga xam ne ñooy salafiya yi euh, ñoom chaque jour Euh, bu booy déglu seen i kàddu da ngay da gis ñuy feeñal ni ñi nga xam ne ñooy mu tasawee fóon yi ñoom ay mushrikuun lañ loolu noo ko noo ko déggee. am na ci ñoom ñu jàpp ñu bind. ci hmm. seeni téere di jàngal seeni i taalibe di xutba ci seen i kaw manaabir. Hmm. di wax ni ab mutasawif dub jullit. dub jullit dub jullit ku gëm tariixa moo xam tiijaan nga murit nga xaadir nga laayeen nga ku gëm am sëriñ. Hmm. yow nee nga mutasawif nga lislaam moom bokkoo ci. firaw naa la gën. iblis ay morom ngeen am na ñu jàpp loolu. mais xam nga loolu ak tooñ la. ki nga xam ne mu ngi ci jàkk ji di julli mi ngi woor weeru koor day aj baytillahil haram danaan laa ilaha illallah nga di ko dégg mm. mu naan ashadu anna muhammad rasulullah nga di ko dégg mm. yor na kurusam di werd salaatul fatihem nga ni comme tasawuf lay dund rek yéefar la lii ak tooñ la loolu tamit bëggoon naa comme ñu ñu ñu ñu leeral foofu noonu bu baax a baax oustaz ñan ñooy mu tasawifoon nii maanaam ndax bu ñu bëri xamuñu lan mooy tasawuf ak ñan ñan la ndax kii tunul rek mooy mu tasawuf wala ki am sëriñ rek mooy mu sa mooy mu tasawif tasawuf sëñ Omar woote woo ko moo gën a yomb dund ko ñu néew ñoo koy dund ndax lislaam dafay yar nit ki ci ñetti marxala lislaam dana la former ba nga am imaan yoon wa ngay jaar ba am ko ña la koy jàngal lañu tuddee ahlul kalaam ñuy jàngale aqida as saxiixa boobu wéree muy imaan xol a koy def sa digganteeg sa borom li nga ko war a gëmal li nga ko war a nangul melokaan yi nga ko war a jox yi nga ko war a dàqal loolu yëpp nga am ko ñu ni am nga marxala al ula muy sa imaan complet na boo ca paree ñu ne la wutil marxala al islaam al islam mooy ni ngaa jullee ni ngaa wooree ni ngaa ajee màkk ni ngaa azakaale boobu ñu la koy jàngal ba nga maîtriser ko mën koo appliquer na mu waree mooy ñuy jàngale al fiqhu la siyama al mazahibul arba ka ci gën a siiw di imam malik ñooñu sa cër yii ni ñuy jaamoo yàlla lay jàngale gis nga kuréel gu njëkk ga sa xol bi jaamu yàlla lañ lay jàngal kuréelug ñaareel gi sa cër yi ci kaw jaamu yàlla lañ lay jàngal kee mooy jàngale imaan kii mooy jàngale lislaam mu des al marhala al salisa muy marhala al ihsan al ihsan nag mooy sa jikko ji sa biir sa ruux mel na ko yàlla bëggee lii nag ñi la ciy yar doo iñaan doo wax lu amul doo siis doo rëy doo soxor doo yéene kenn safaan bu la ko ñëpp yéene woon yow aw yow nga leen yéene nga mel ni alaaji abdul aziz si dabaax yar bii ki la ko mën a yare mooy aseyxu ki li ci mën yar mooy kiy dund tasawuf mën laa entraîné ba nga di ko dund loolu mooy tasawuf nga xam kon al Ihsan gi yonent bi ni woon pour sa diine complet kaw gi bir gi wet gi wet gi lépp complet fokk nga am ihsan te mooy li ngay defal yàlla nga di ko di ko ko defal ba mel ne dangaa janloo ak mom boo ca àggul nga gëm ni mom mi ngi janloo ak yow sa jaamu gi ngis taldu ci bokk sa jaamu gi bëgg aljana ko sa jaamu gi ragal safara yóbbeewu la ko da nga ni da ko war jaamu te yaa koy jaamu al ihsan ñi la koy jàngal sawi fii mu ni waaye boo xëyee xëy teg fi téere yi dem rek kuti sëriñ directement yow zindiq ngay doon zindiq mooy kuy dugg ci àtte yàlla yi di ci ti lu la neex sañ a teggil sa bopp sañ a sa bopp sañ a weeru koor def ko beneen weer saña saña saña ci àtte yàlla yi di dugg di ci salfaañe lu la neex ndax lan da nga am sëriñ te jotoo woon a jàpp mun kooku zindiq lay doon mm. mu ni ku jàng téere yi ba noppi nag wuti sëriñ muy sayxul mutasawwifi bii kii moo aw ca yoon wa wa man jamaa baynahuma faqad taxaqaqa imam malik mi ci ñeenti ñii di masahibul arbaa moo ci raw moom nii la classé te lii mooy tasawuf am na question boo xam tamit du ñu jeexal émission te laaj ñu ne ko lan moo tax sa diggante ak Ahmad Lo ak maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy Omar Sall ñooñu damay gis nga leen di sànni xeer bu baax baax ci wàllu site internet lan moo lan moo xew seen diggante yéen ñooñu foo seen ma sànni leen xeer rek. Mhm. na ni foos la ñu ubbi ñoom tànq ko tuur ko samay sëriñ xam nga loolu gën a bon. ki bind téeréem cité tuuru Cheikh Ahmed Tidiane Sirif boole ko ci ñi yées ci ñi Lo moom Ahmad Lo juróom-ñeent ñi nga xam ne ñi yàlla bind juróom ñi ñu ci gën a bon ca la boole Ahmed Tidiane Sirif mhm. kon loo dégg ci moo xoko mhm. la ma ko denc la ko Omar Sall di taalibeem lii dooguñu boole. loolu mooy boole maanaam kon euh, mbokk yi euh, li nga xam moom laay mujjee ci ay kàddu rek di leen ko dénkaat yéen ñi nga xam ni yéenay baaxoo di safoo seen émission Heure Nabi mooy ñi nga xam ne nekk Sénégal te dund wàllu tariqa question yi bari na lool waaye temps bi ko mayul kon nañ gën a boolawaat rek ñun taalibe cheikh yi ñun murid yi ñun xaadir yi ñun laayeen yi ndax instant bi am na ñoo xam ne ñu ngi biir Sénégal. yéen nañuy xeex yéen tijaan yi yéen murid lañuy xeex yéen yi lañuy xeex yéen laay yi kon yéen nag bu ngeen xeexee seen biir ñoo pour ñu euh, xeexal yéen dana yomb kon euh, aljamaatu rahma wal firqa baada kon nañu gën a boolawaat xam ne Sénégal ñun ñoo ko taal te ñun ñoo ko moom tijaan yee ko moom murid yee ko moom xaadir yee ko moom laayeen yee ko moom kon loolu am nañu dugg suñu biir nag bëgg ñoo féewale kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax gërëm Oustaz Malick Mbaye baax a baax ci waxtaan bu am solo bi macha allah ku dégg kàddu gi xam ni xam-xam doon waxee waaye li mu wax tamit xam na ko bu baax a baax bi maîtriser na ko kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàlla yokk xam-xam bi te ngeen ci Oustaz ma bàyyi la nga tàggatoo. baarakallahu jërëjëf sëñ Omar yàlla na ko yàlla barkeel. mbakkaan mi itam yàlla na ko yàlla yokk. ba fu waaye toll ci àddina bi mën di leen suivre. di leen topp ak di leen déglu. yàlla yàlla barkeel ko. sant la gërëm la sant sa caméraman yi ak techniciens yi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. kay kon euh, foofu la ñuy joxe waatee beneen numéro émission incha allah rabbi di leen wax ngeen kàr ko fii ci El Vision Médias di bi nga xam ni askan wi rek moo ko tax a jóg tarixa ko tax a jóg wala tarixa yi ñoo ko tax a jóg rek moo ko ñor waaye tamit mbooleem loo xam ni Sénégal mi ngi koy dund ci événement tamit boo ñëwee fii ci site bi incha allah da ko ci fekk kon ñu ngi wax mbokk yi ngeen gaaw ngeen bi. El Vision Média ñu ngi gërëm suñu caméraman yi ñoom Balla ñoom Fadel euh, ñoom ñu ngi leen di euh, jaajëfal bu baax a baax di nuyu bu nga xam ne nag moom mooy suñu directeur El Hadj Lo ziar bu baax a baax kon di wax ni maa ngi leen jox dégg euh, incha allah rabbi ba beneen yoon fii ci émission Al Nabi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu